mbooloo mi Cheikh Mouhamadul Bachir nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu suñu Ousmane suñu ba Cheikh Mouhamadul nee na mi ngi lay delloo am ñu baax a baax nee ci ñu ko alxuraan santaane mhm. nee kon ñi ngi lay dalal jàmm bu baax a baax nee ak mbooleem délégation bii nga àndal nee dégg na kàddu yi nga wax bu baax a baax. nee dégg na ko bu baax a baax. nee tamit rafetlu na kàddu yi. nee na mi ngi lay sant bu baax. nee te di la gërëm. ndax nee sa tànk yii de boo yemoon ko Cheikh Mamadou Muntaxa. nee na mën naa yóbbaale ñëpp géew. nee na képp koo xam ne dëkk nga ci màkkaanum sëñ Tuubaa mi rek mën na koo yóbbaale. nee na kilifaam ci des yi nga jaar. muy sëriñ Cheikh mu sëriñ saaliw nee na boo fa yemoon rek doy na sëkk nee na ba si sëriñ Mahamad danum si ñett bi laaj mii nga jógee ak Cheikh Mamadou Fadel moom sëriñ Soyebu nee na kenn ku ne moom noonu demee moom nee na moo yow rek boo fa duggoon rek nee na nga yem fa dong doy na sëkk day mel ni agsi nga ci moom te nee na loolu mooy dëgg ci moom nee na waaye boo yëkk ci waatee say jéego nee na ko defee woon daaw nee nga defaat ko ren mu tombé waat nee ci waxtu yi nee na loolu dafa am lu muy tegtale kon ñu ngi lay ñaanal bu baax nee nii nga ko waxee nee na dégg nañ kàddu yi bu baax a baax nee na tamit rafetlu nañ ko bu baax nee na ñu ngi sant mbooloo mi nga àndal yëpp nee na suñu Cheikh Thioro mii di doomam. nee na moom dong bu nekkoon ci yow doy na. nee na Cheikh Mamadou Moustapha nga àndal tamit. nee na maam sëñ Mandoumbe Xabaan ñi gënoon a ci yoon sëñ Tuubaa wii ci la bokk. ak sëriñ Muudu Xabaan. nee na ñooñu de xam nañ seen taxawaay bu baax a baax. nee na ñi si ñëpp nag. te tudd leen. nee bu doon lool lépp tamit. nee aw askan de boo ci jàppee kenn dong. nee dafay mel ni téye nee na sëriñ mbake moom sëriñ Cheikh Khady nee xam nañ sa diggante yow ak moom nee na ndax de moom fu mu toog wax ko nee na adduna bépp xam nañ seen diggante te nee na sëñ Abdou Mbackeem sëñ Cheikh Khady nit ku baax la nee na nit la koo xam ni tamit nee na moom Cheikh Amadou Bassir lim xam si sëriñ Abdou nee na de sëñ Abdou Mbacke du ànd ak kenn ngir adduna. nee na ci ay principe rek lay ànd ak nit. nee na kon sa digganteeg sëñ Abdou ni mu demee. nee na ñoom ñëpp bokk sëriñ Touba tàbbi nañ ci biir. te nee na loolu de mooy dëgg gu wér. kon nee na ñu ngi rafetlu bu baax. jéego yii nga jéego ñëw ci moom. nee di ci sant tamit yàlla bu baax. nee na bis bii nga xam ne. nee na ñëw nga ànd ñun. ndax nee na xam nañ waxtu wii ni mu xate ak fi àdduna si toll ndax nee liy wàcc si àdduna si nee na kenn xamul lu mu doon te kenn mënu koo nat tamit kon ku jël sa yéene ju rafet ak li ci nekk lépp nee na calculoo dara nga ñëw loolu xam na nam toll moo tax bi muy woote nee na junjoon na ko waaw ndax dafa wax ni ñaari xaaj la nee na li jiitu nee mooy pësteef suñu diggante sëriñ Serigne Touba nee na loolu de ñun ñii la engagé ndax nee na adduna de boo dee nat dafa leen a waxoon ni màggal gi nee na fi àgg ci doomu aadama yi dafa sori ndax am na ñoo xam ne sëriñ bi jaral na leen seen bakkan daanaka ñëpp nag. lool na loolu nag ñun ñi gëm. nee na foofa la nekk ci sëñ Touba. moo taxoon ña nekk bitim réew. ak ambassadeurs yi. ñëpp jéggal nañ leen. ndax nee na bëgguñu leen a lor. ndax nee ki nekk ci xaal boobu de dafay sori. nee na mooy li ñuy dund ñun. ndax nee waxoon na ko ni dani ko. nee na màggal Touba gii ngeen wax. nee na Sëriñ Touba yi. nee na fan nekk de dafa sori. ndax nee bu ñu jàppee ne wéré digi dafay tasaaroo. nee ñoom de seen pëstéef fa mu toll. mooy képp ku dugg Touba mucc ca jàngoro jooje. nee na ki nekk foofe nee na booy waxee moom dafay xaw a jafe. te daanaka nag ñëpp nag fa lañ ne. nee na yàlla nag suñu borom moom. lu ko neex def nee ngorom gi de seq ko ken nee seddew ko ken tamit. nee suñu borom de moy def de moy dindi. lu ne mooy xam nam koy def. lu tamit mooy xam nam koy defee. mbirum sëriñ bi nag. nee na mbirum sëriñ bi nag. day xar baax. xar bax xar baax xar bax nak boo sa yo ko beugé xam. da dang koy jaaré fudut bax waaye boo ko fa jaaree lu xam. ndax nee na bi ñuy ubbi jumaa ji. nee na fii ci Touba. nee dañ ko ubbi rek. nee na wéradi gi wàcc. kon loolu de dogalub suñ borom la. ndax nee na sëriñ bi ba mu koy def. kañ na basiiram àgg na fa. waaye kii nag ci am xel. nee na loolu di mënu koo xam. waaye dañ ko ubbi rek mu wàcc. nee na muy gën a wàcc. nee na jàkk di julli. muy gën nee na muy gën a wàcc dem ba daanaka. mel ne amatu fi mel ne amatu fi nag. laaj naa ko nee na laaj na ko ki jiite médecin chef bi. lu toll ci weer. toll ci weer. mu ne ko nu natte. mu ne ko nu ngeen natte. ba yaakaar ni moo tax wéradi gi wàññeeku ci dëkk yaakaar ni moo tax wéradi gi wàññeeku ci dëkk bi. mu ne li jàpp de mooy waa dëkk bi dañ koo gëmul. wala. wala nanguwu ñoo def ay test. wala ku gis ci yow màndarga wi. buñ la bëggee testé nga bañ. buñ la bëggee testé sax nga bañ. moo tax liñ testé ñoom moom a moom rek lañ mën a gis. nee na moo tax mu néew a néew. waaye ma ne ko waaye bu fekkee loolu am na. kon nit ñëpp dañoo war a faatu. Ah, ndax loolu wér di moom liñ di wax naan jàngoro boo ko nëbbee mu weer la. bi dafa wax ni jàngoro moom boo ko nëbbee nag mu weer la. Ah, kon day mel ne réalité bi. kon dafay mel ne réalité bi. Eh, adduna na ko dëgg. adduna de joxaat na ko dëgg. ndax neena sa yo toge wer ak nangam neena guso kenn faatu hopital yi tamit kenn tuddu ja kon li nga meuna japp sam kel moy moy amatu fa nak neena magal gi tamit nonu motax serigne bi de limu mu ndax neena lolu kat ngem le waye nak suñu borom tabarak wa taala dafa am num teurele aduna neena bo na ci lolu neena nak da ngay day baye sababu te sabab bi nag mënut a ñàkk sabab bi mooy lii ñuy def mooy wattandiku gi ak di sàmmante ndax na laa dara la wala diraara mhm. nee na loolu suñ borom moo ko wax nee na ndax nit kat wër taxaru nee na mooy dig ndax day diggante bu xataxat nee na moo tax nag contexte boobu ku ci ne ku ci ñëw ku ci ñëw nag war ngaa xam ni mu xam na ni mu toll kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax nee na di la gërëm bu baax nee tamit di la ñaanal bu baax suñ boroom jàppale la nee na tamit te dimbale la nee na sant nañ bu baax nee na sunu xol sedd na